murtajan minnatun lana jariun aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani mbokk yi nuy seetaan te di nu déglu dellu siwaat nañ seen jataay bi nu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci 24 actu ñu dellu si tey dellu si ci beneen tomb boo xamante ni fas yéene nañ ko ànd yenn yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy déglu ñu seetaan rawatina ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci réew mi ak ci ci biirum réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di delloo seen wàccuwaay di leen ñaanal sunu kàddu fekk leen ci jàmm ak tawfeex tey ji nag dañoo bëgg a dellu si ci benn tomb bu gàtt boo xamante ni mën naan na actualité la fii nu toll ci jamono bi ñu bëgg a wax ci wàllu lakk yi nga xam ne day am ci sunu réew mi di senegal te buñ seetloo at mi tey bari gim bari jéggi na day waxantuma la ak semaine bii ñu génn wala semaine bii ñu nekk sax laay wax xëyee déglu rajo wala nga taal télévision nga dégg ay béréb yuy lakk ay marché yuy lakk ay façon ay kër yuy lakk yu bari yuy lakk yoo xam doo xam lu doon te jàpp naa ne wolof yi ñoo waxoon ne xoddeeku ci ba ngay lakkle loolu moom yaakaar na baatu wolof la moom bu yàgg la loolu liñ ci jublu woon mooy nga fogaru balaa lakk di ñëw wala lakk di ñëw mbir mii nag fi ñu toll daf mel ni jéggi na dayo bu nu seetloo yi ci toftalu sax yooyu it gën a doy waar lakk goo xamante bu dikkee dee lay àndal ñuy rey nit ñi tamit loolu nag dama jàpp ne war na noo delluwaat ci li nga xam ne mooy li nu fi indi woon war li nu war a delluwaat mooy delluwaat ci sunu borom mi nga xam ne moo nu bindoon te bim nuy bind dafa waxoon nu jaamu ko wama xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon ginnaaw bindu nu lu dul ñu jaamu ko dafa mel ni sunu waru gar dafa mel ni dafa am lu ci des Euh, lakk gi de ni mu dikkee metti na lool goo xam bu dikkee faat ay bakkan ndax lanu yàlla santoon dañ caa nekkut muy génne asaka ndax danoo àggatul ci la nga xam ne mooy di bu ñuy jaay ak bu ñuy jëndante ñuy jaayante ci njaayante mu sell di jënd njënd mu sell ndax du nu delloo laaj bi ci sunu bopp ñun wax ne saxaabay de bu nu leen nattu masaana dal wala dara wàcc ci seen kaw li ñuy wax ñoom dañuy wax ne dafa am lu bàyyi ci sunna yi leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon dafa am yu yun ci bàyyi moo tax nattu yi di leen dal ñoom dañuy delluwaat vérifier seen bopp bu nu demee ba ci yàgg ñu xool wala ñu ne ndax li nu yàlla digaloon ci farate yi ñu war koo def ndax daa an koo matalewut yooyu lan daan def bu ko defee bu nu vérifier seen bopp yéeg ne am na lu ñu bàyyi ñu delluwaat ca loolu moo tax ñoom lu leen masa dal ñu delluwaat ci seen bopp ñun ndax sawara wii di ñëw ndax du nattu ci ñun wala muy mbugal wala loo xamante ni dañoo àgg nag ci jamono boo xamante ni jamono bu metti ci ñun la lu ci nekk laaj la alxuraan dafa wax ne sunu borom du soppi mukk jamono ñun ñooy soppi ko inna la yuxayru ma bi xawmin ataa yuxayru ma bi anfusihim kon ñun ñoo soppeeku sunu melo wanu meloon waaye du jamono moom kenn du ko sikk aw melo kenn du ko sikk ndax jamono yàlla la yàlla la ñu seetlu bu baax a baax a baax de ne fii nu toll lakk yi ni mu baree kenn xamul nu mu toll kenn kenn kenn xamul nu mu toll lenn lii tamit ndax duñu delluwaat ñu ne ndax ni ñuy installé sunu wàllu courant bi ak ni ñuy installé sunu dëkkuwaay yi moo baaxul loolu daf mel ni danañ ci dellu danañ dellu laaj bu baax a baax ne a ah, ndax ñun duñ delluwaat nag tuub delloo sunu bopp ci yàlla ndax du bokkaale yi nga xam ne moom la ñuy def te bokkaale kat saa buñ ko defee rek dañuy màkkelu mànkeloo sécurité mooy nattu day ñëw dal ci sunu kaw bu nu jëlee yàlla teg ko ci kaw leneen wala ñuy jaamu leneen lu du yàlla loolu day waral sécurité dootul amati ci ñun bu fekkee ne àgg na nag ci jaamu yàlla ak nekk ci li nga xam ne moo mooy li sunu borom digle ñu nekk ca bu boobaa sécurité bi yàlla moom moo nu ko warlul kon dañu delluwaat seetaat sunu bopp ci wàllu wi nga xam ne moo di wàllu lakk ñu yëg ne danoo dem ndax bu fekkee ne yonante bi salaa salaam dane képp kuy jaay te jaayee ni nga xam ne ne la ko lislaam santaane bu boobaa yàlla dana barkeel sa alal yonante bi teg ci lu am solo mu ne képp koo xamante ni jaaye woo ni la lislaam sante yàlla bu barke am ca loola yàlla bu ca barke am ndax du ñàkk barke gi mooy dellusi ci ne bu nu dajalee sunu alal dajale sunu xaalis dem ba jàpp ne ñoo ci nekk yàlla indi natt bu rëy ak lat ñëw dal ci sunu kaw yóbbu sunu alal yóbbu sunuy doom wala mu lor na ñun ci sunu bopp kon nan seetluwaat sunu bopp bu fekkee ne ñaar ñiy jënd ak ñaar ñiy jaay ku ci nekk yaa ngi njëkkante bu buñ lay peeseel la ngay wax yow miy jënd da nga koy wax naa ko dolli ci ndax mu daanu dolli ci ndax mu daanu kii jënd di kii jaay di jaay yeneen balance di jënd yeneen di jaay yeneen ndax du nu dellu ca la nga xam ne salafu saalihiina ñoom ñoon lan doon jaayante ak a jëndante salafu saalihiina yi de dafa am ñaar ñoo xam ne dañ doon jaayante ak jëndante pàkk kenn ki ñëw jënd ci moom pàkk jaay ko bi nga xamee ne waa ji ko jaayoon ki ko jëndoon ci moom tàmbali na sànce bi <coughs> bi mu tàmbalee sànce bi dafa dox tuuti di gas fondation bi far gis ci benn benn ànd boo xamante ni or la def bi mu defee or boobu waa ji moomoon pàkk bi daal di dikk ci moom ki nga xam ne moo ko jënd ne ko man kat bi may gas di tàmbali liggéey bi dama cee gis àndu or te man bi may jënd ci yow suuf rek laa jëndoon kon lii yaako moom. waa ji ne ko déedéet man mii bi ma lay jaay suufas kese laa la jaayan kon la ci biir yaa ko moomaale ñu nekk di ko werante di ko jiiñoo di ko jiiñoo ba benn waaye dikk ne leen lan la ñu wett mu ne leen yéen ndax ku ci nekk ndax yéen kenn am na ci doom kenn ki ne ko man am naa doom ju kenn ki ne am naa doom ju jigéen. mu ne ko loolee ngeen di jiñante maye leen ngeen dugal ko ci biir sëy ndax ñun dinañ àgg ci loolu àgg nañ ci loolu àgg nañ ci tamit nattu yi ñuy teg ndax du jirab ndax du xërëm yi nuy jaamu ndax du xaaw yi ñuy takk ndax du xari menn melo yi nga xam ne moom la ñuy yar ci sunu biir kër jàpp ne moom mooy fara lépp ndax du téere yi nga xam ne wala ñuy rendi loo xamante ni yàlla taxul ñu rendi ko ndax du yooyu moo indiwaat nattu yi dëgg-dëgg ab laaj la boo xam war nañ cee dellu mag ñu jëkk ña fi nekkoon de seen dëkkuwaay yan nekk néegi ñax lan dëkk ba nin fi jógee waaye néew na lool nga dégg ñu ne la ak lakk moo leen def nangam lu néew a néew nga koy dégg te moo ne ñoom de waxumale seen kër ya waaye seen dëkk yenu dëkkoon benn bantu almet mënoon na koo taal ndax booba tabax amul te ñoom fi leen dëkk ba bàyyi fi seeni seeni xaalis sax daawu ko yóbbu ci banque ci seeni kër lañ ko daan denc waaye yàlla da a aaroon ñuy jaamu yàlla dong gëm yàlla dong moo tax yàlla aaroon leen ñun nag dafa mel ni dañoo boole yàlla ak leneen moo tax yàlla di xëcc nattu yi gën a metti dina ko def xol ak gaas yi nga xam ne nit day tëdd ci këram ab gaz explosé rey ko wala mu rey njabootam wala mu rey dara te moo ne suñ kër yi de buñ ko gisee dañuy wax ne kër yu am sécurité la yu am sécurité yenn saa sax nga am ko ci àgg naa la ah gii kër de tën a sawara te moo ne sawara mooy lakk kër yi immeuble yu gën a rëy sawaraa ngi dem di lakk mu immeuble yooyu sunu étage yi sawaraa koy lakk marché yi nuy jaayee sawara yi ngi koy lakk di bombarder sunu alal di bombarder sunu sunu sunuy sunuy alal di bombarder sunu dëkkuwaay di bombarder li nga xam ne tamit mooy sunuy bakkan kon nag sëñ bi nan delluwaat ñu laajaat sunu bopp ñu ne ndax ñun ay na nax nu imaan ana sunu imaam fan la toll ci yàlla yàlla kat du natt mukk ay nit lu dul nit ñi ñoo soppeeku nag yàlla wacce nattu ci ñoom nag ndax du ñu delluwaat ñu tuub tàllal sunu borom sunuy loxo ne ko ñu ngi jéggalu ñu ngi tuub bakkaar yi nga xam ne demoon ndax du sàngara yi nga xam ne foo jaar ci mbedd yi foo jaar ci dëkk bi ñu naa la mbuus cent lay jar wala mbuus deux cent ndax du ñu yàlla go ndax du eh, li nga xam ne moo di baar ñoo bari ci kii bi nattu yi di bari ndax du di jigéen ñi nga xam ne ñooy foo di jaay seen bopp ndax du auberge yi nga xam ne ñoo bari natt yooyu ak foo moom nga xam ne dem na ba gën a not li nga xam ne moo di dëgg ndax du moo tax yàlla mujj nag soppil nu ko sawara ne nu ginnaaw da ngeen di fonang di ngeen xam ne ba ma leen di bind nag foo taxul woon ma bind leen ginnaaw da ngeen di fonang kon naa leen nattu fii ginnaaw xam na ne foo ma fu mu ni yóbbu sawara yàlla mosal nu sawara wan ne nanu mbugalam sawara mi nga xam ne nag su ngeen jógut jëm jublu ci yàlla jublu ci man bu ngeen deeyee beneen sawara bu gën a tàng wi laa leen di def ah laaj la de nan seetaat sunu bopp sunu toogin jekkul de jekkul suñ digganteek suñu borom suñu borom mi nga xam ne moo la bind may la wér may la ak euh, kàttan may la alal may la lépp may la njaboot digal la ba noppi nga mën koo foñ ne ko dégguma la yàlla ne la waxtu sàngam na nga dem bu noddu jotee na nga dem julli ji ñëwal ci xéewal gi nga lank bu buñ la tegalee alxuraan ne la déglu ko nga ne ko duma ko déglu buñ la tegalee la nga xam ne moo di xasida wala yeneen nga lànk ne duma ko déglu yow daal yaa ngi déglu ay caaxaan yaa ngi ci internet bi yaa ngi ci télé bi yaa ngi ci filma yi yaa ngi ci yu bon yi lii nag natt la boo xamante ni bu ko kenn laaj kenn na ku nekk wëndeel ko laaj ko sa bopp ba xam natt bi fan la jóge Sénégal ni muy lakk léegi dafa bari dafa jéggi dayo dafa jéggi dayo dafa jéggi dayo mënoo toog ci rajo bi déggoo ñu ne la am na béréb sàngam buy lakk mënoo toog mukk ci semaine bi wala ci journal déggoo ñu ne am na fu ñu doon rey am na ñu ku nu rey koo xamante ni. am réew nag ak ay nit nag suñu gëmee yàlla dem ba jaamootuñu yàlla wala di bokkaale yàlla yàlla sécurité bi mu tegoon ci ñoom sécurité boobu daf koy dindi moo tax léegi sécurité amatul nit ki fu mu daan amee sécurité ci biir këram léegi da ngay tëdd sa kër yor sa alal ñu fekk la fa rey la fa. Ah, wala nga toog nekk sa kër yàlla nattu la kër ga ñu tàkk wala nga dem sa marché ba ngay yaxantoo di jaay ba fu defe ne yow tey di ci xalaat lu nekk na sa alal bari na li nga dajale bari na yàlla dikk fële ak tàkk takkam ak lakkam lakk alal jépp ne ko fuuf loolu nag war na noo laajaat suñu bopp Sénégal fii nu toll ci lakk kenn xamul nu mu toll kenn kenn kenn xamul xam naa ne ak sàggante mën na noo wax ne am na ci ci ni nga xam ne ne la ñuy installé courant bi ak nin koy fooyee ak nin koy defee ak yi nan lañ koy defee ak sécurité bi waroon a am yooyu yëpp dañuy delluwaat nag ci wàllu organisation xam ne nag feek jaaru na li nga xam ne ni la yàlla wàccee sunnaam ak sabab yi nga xam ne ak li nga xam ne mooy organiser àdduna ndax ñi nga xam ne ñooy defar courant bi ak jox na ko de am nañ ci ñoom néew na lool nga dégg seen dëkk yi am néew na lool nga dégg seen dikk ndax ñoom danoo fonk la nga xam ne moo di sécurité bi ak la nga xam ne moo di norme yi nga xam ne moom la courant laaj kon daal lii doy na waar lool ci lakk yi nga xam ne day am ci réew mi te waxtu wii nag mu baree bare bare ba kenn mënu koo xayma àgg ci daye boo xamante yóbbu ay bakkan yoo xam ne kenn xamul nu mu toll lii nag dafay wane na rek ñun danoo delluwut ci yàlla tuubunu suñu bàkkaar yi nu yor tuubunu suñu bakkaar yi nu yor bàkkaar yi nag war nañ ko tuub delluwaat ci yàlla kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa diine war na noo wax nit ñi ñu bàyyi fo mi fo defarul dara loo am ci foo am fo dina ko jëlaat loo am ci foo yàlla dina ko jëlaat te suuf si nga xam ne moo di suufas sunu borom si suuf si yàlla moom bala koo tukkil ñu baax ñi rek la fi mujje ñu baax ñi nag tuuti lañ fi fiin tool moo tax yàlla mi ngi nuy wan boppam waxtu wu nekk wane ne moom am kàttan moom moom nguur gi kenn fekku ko ci kon gis ngeen ne fan yële passé at yu passé ay nag ay nag déewandoo fi nangami téeméer junniy nag loolu bu ñu demee ba ñun suñu alal fi ñuy commerce mi ngi lakk li ñuy sàmm mi ngi lakk mbay mi mi ngi tàmbali nangootul loolu dun seet suñu borom suñu kii te suñu borom nee na yéen bu du woon ñi nga xam ne ñooy jur gi bu nga bu taw jotee sax du ma taw bu du woon jur gi rek bëgg luñ dunde moo tax may taw te yàlla nee na doomu aadama ko ci gënal kon nan delloowaat suñu bopp jaay ku koy def na nga xam ne yàlla mi ngi lay gis te yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na kullu taajirin faajirin ilaa Abubakar kuy jaay ku nekk am nga ak caay-caay wala as naafeq ba mu des ila Aboubacar képp koo xamante ni jëfe nga ne Aboubacar doon jëfe yonante bi commerce na yonante bi sàmm na yonante bi def na loolu lépp kon loolu dafa barkeel ku ko barkeelal lu nekk nga ci mën a am kon mbokk yi daal fii la ñuy taxawlu ak jaaxle gu metti ak tiitaanga ju metti yoo xam ñun ñëpp nan delloowaat yàlla sunu borom yàlla moom moom lépp moom lan war a jaamu moom moom mbir yi moonu moom lim nu sant mooy ñu jaamu kon lii tiit la ci lu nu war a wax loo xam ne dinañ ci dellusiwaat sax ndax sabab yéeg waaye danoo gis ne lu xew la actualité la loo xamante ni du actualité bu neex nag ci jullit neexut ci kenn sax loo xamante ni say bakkan day dem say alal di dem lakk rek di ko yóbbu te ñun tabax ba mu sécurité loolu mooy wane ne kon ñun am na leneen nattu buy ñëw ci ñun lii mbugal la ak nattu mbugal ak nattu nag ab jaam day delluwaat tuubal boromam boromam jéggal ko bu ko jéggalee nag la paase woon mu tàmbaliwaat. kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Baye Sall moo nekkoon ci caméraman bi soxna Aw moo nekkoon ci réalisation bi soxna Khady Niang moo ko doon monté ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di leen baalu ak wasalaamaaleykum wa rahmatullah murtajan minnatun